léegi nag boo ciy wax kër docteur dañu lay xool jàpp ne yow da nga leen a bëgg yàqal état bi jàpp ne yow faraloo leen moo tax ngay wax li ngay wax waaye bu ñu desee ci masla continuer di nëpp nëppal problème yi hôpitaux yi du ñu baax plateau médical bi du relevé wu te dinañu continuer di nekk ay mouroir aujourd'hui on parle de démission Abdoulaye Diouf Sarr est-ce que ça changer le système ça ne peut démb bi lakk gi amee automatiquement Pape Samba yaa ngi may wan Antoine Diome mu ngi fa woon Mansour fay mu ngi fa woon Diatara mu ngi fa woon tonton Diop si mu ngi fa woon c'est normal c'est le maire de Tivaouane ñeneen ñépp dawandoo ñëw waa yéen effort yooyu ngeen di converger bu amee tooxi doona du ngeen ko def bien avant tooxi doona di am mhm. vaut mieux prévenir que guérir wallaahi aujourd'hui loo wax ñu jàppe ne danga am par parparloo wala xàjj ak seen ci wàllu politique déedéet am na ñoo xam ne dañuy wax ngir askan wi am ñoŋteef gu nekk ci ñoom. Mm-hmm. kër docteur nit ñi bañuñu leen. waaye dafa am ay lompoñ ak ay loof ak ay lott lott yu nekk ci yéen buñ ko joxanut baaraamu tuuma jàngoro boo ko wéer du faju dinañ ci wax waxaat ci waxaat ci am na ñoo xam ne dañ naan waaye il faut pas qu'on parle après ñu jàll a autre mm-hmm. chose déedéet. bi ñu demee ci affaire problème mu euh, Louga dañ cey wax le lendemain ñu limogé directeur bi ba pare tëj ay sage-femme ñu ne déedéet sage-femme yi lan moo tax ñu tëj leen sage-femme mën na lépp ba mu des opérer même bu négligenté même bu fekkee dafa dafa naqari wax même bu fekkee dafa ñàkk kersa ki muy ki muy dimbale pour mu wasin mhm. waaye mënut a opérer du rôlam mhm. ñu woo sage-femme yi ne leen lan mooy seen problème ñu ne ki doon opéré ki war a opéré kenn defu ko dara te ñun la ñu jàpp suñu ay mbokk ah ça c'est pas normal problème mu Kaolack beneen problème mu ngi noonu sage-femme bi xool bindal certificat de décès papa ji jox ko ne ko xale bi dee na jël ko dugal ko ci kees ñu yóbbu ko ci borgo ba dugal ko fa kees. rakk ji mu àndal ak paa bi ñëw raay bopp xale bi xam naa pour une dernière fois quoi. mu raay ko xale bi jug. ay waay commencé jooy. ñu teg ci ñaar wala ñetti fan xale ba génn àdduna léegi li nekk ci hôpitaux yi boo koy wax toi tu es considéré comme quelqu'un qui veut mettre en mal les médecins wala le personnel de la santé avec la population c'est pas le cas ñi nekk si man dama am ay mbokk yu nekk si biir euh, médecine bi Sénégal mhm. dañ lay wax ne la ñun ñoo la gën a xam problème yi fa nekk boo demee hôpital bu Fatick wala nga dem hôpitalu Gossas wala nga dem hôpitalu Kaolack wala nga dem hôpitalu Tamba wala nga dem hôpitalu Kolda foo dem même problème yi la ñuy jànkonteel xaalis bi ñuy génnee muy jugee organisation mondiale de la santé muy jugee ci gafak ak état sa dërëm sama dërëm ñun l'argent du contribuable bu ñu ko dajalee ba pare dañ koy jox médecin yi gën a xaay ñu dem ay séminaire def sali une semaine ñu leen di fay per diem luweel leen hôtel yi gën a bakkane ñu nekk fa toog fa une semaine xaalis boobu mënoon nañ ko jënd par exemple jënd ci benn scanner yóbbu ko ci benn hôpital 100 millions. après mu jël résultat. boo demee ci l'hôpital boo mun ci dem yow boo dikkee malaat da ngay fay balaa ngaa dugg. ticket lañ lay njëkk a wax ticket. da ngay nekk ci problème ñaata nit. dafa am benn waay bu ma woo Kaolack la dëkk ne ma Pape Sidi. Mhm. dama lay wax benn affaire pour nga ñu ko ci télé bi. Mhm. dama dem hôpital yóbbu sama rakk am benn famille bu fa dikk amuñu xaalis ñu ne leen balaa ñu leen laal malade bi il faut ngeen indi ticket buy wane ne fay ngeen. malaat bi toog di xaar yàlla jaare fa jël bakkanam yàllaa yor bakkan waa ji de ñu ne ko léegi bala nga jël néew bi il faut nga indiwaat xaalis. allahu akbar. ça se passe dans les hôpitaux au Sénégal. oui. boo dikkee balaa ñu laa laal. da fay da fay. waaye boo fa deewee par juum ba dee fa balaa ñu laa jox sab néew dangay ngay fay. léegi. ban instant la ñu mën a dem si àdduna ba nit ñi xaalis gënal leen dund doomu aadama. wallaahi c'est très grave. ministre de la santé et de l'action sociale. man day wax dëgg yàlla bëgguma nit ñi jàpp ne dama laa mere wala man am dara du law ba teq ma ci li ngay def. àdduna du yàgg ba ma nekk ministre de la santé je ne prétends pas l'être je sais pas xaw kenn ku ko bëgg a nekk donc man waxuma pour. yow nga jóge ci poste bi nga nekk waaye dama ni. nga jël sa fil d'actualité nga dugg ci internet bi nga xool sénégalais yi lu ñuy wax. c'est trop difficile de parler dans ce pays soo waxee kii kii mu ne danga maa bañ wala kii non kii dafay dafay dafay kaas rek fekk li ngay kaas jugu fi. mu ngi fi de. mu ngi fi mu ngi nii. Mhm. c'est on est en face de ce problème on ne peut rien faire onze bébés. ay bakkan. billaahi ay bakkan. ay bakkan kenn mënu ko remplacer. irremplaçable naka lañu ñu mën a def pour taire se maux de la santé maanaam ñun bu ñu mu ngi mel ne sa yaay dóor la nga daw làqatu ci moom bu dee góor la yaramam war naa daw waay. wallaahi. nga nga nga def dara sa yaay dóor la nga daw laaxatu ci moom parce que amoo fenn foo dem. amoo beneen issue boo feebaree ñun man mi wax ak yow bu ma feebaree kër docteur laa jëm. wallaahi ñun bu ñu woppee munuñoo dem France mënuñoo dem Belgique mënuñoo dem Maroc ñun ci l'hôpital yi nekk ci réew mi la ñuy fajoo. billaahi moo tax bu ñu feebaree rek dañuy tiit. encore une fois tout le personnel de la santé au Sénégal n'est pas n'est pas euh, euh, y a pas que des euh, oiseaux de mauvais augure wax naa ko baamtuwaat naa ko am na ci ñoo xam ne dañuy génne seen xaalisu bopp di jàppale malade yi mais du ñëpp mhm. am na ñoo xam ne dañ leen fa teg médecin ba yëgu ko tinu ko dafa xëy gis ko ñu ne ko kii mooy sa nangam moo lay jàppale ci nangam billaahi fekk quota moo ko fa indi wala pour recaser une clientèle politique ñu nekk ci suñuy yaram di jàng di mokkal ba baa ñuy mën kenn xamul li la. c'est très dommage et puis problème mu Tiwaawoon bi lan laa ci mën wax rek wax rek laa ci mën maak ñi nekk ci internet bi on ne pourra qu'en parler en parler et en parler encore encore encore encore ba keroog yàlla di ñu wax ne fii la wànnante di mu jëkki gëtam si tout au long de la journée tout au long de la semaine on va en parler on va écouter les gens xëy na dina am action et réaction mais je lance encore une fois un appel au président de la république da nga am benn kuréel goo teg gu tudd COSUEL nee nañ pour mu saytu kaaraange nit ñi parce que lu bëri ci liy indi incendie mooy maanaam installation électrique. Hmm. ba mu am court-circuit ci biir hôpital. ba lakk ay doomu aadama ay bébé COSUEL nañu jug ànd ak ay techniciens ñu xool édifice public yépp hmm. hôpital yi. lekkool yi marché yi mhm. bureau yi mhm. administration bi yépp ñu xool ba xam installation électrique yi fa nekk dëppoo na ak ay normes sécuritaire ba noppi ñu installé fa ay bouches d'incendie wala ba pare ñu installé fa ay extincteurs yoo xam ne dañuy opérationnel ndax ci euh, Tivaouane bi démb sept extincteurs ñoo fa nekk ñaar moo ci dox cinq yépp dangay ngay bës ba sonn dara du ñëw si c'est pour faire bling bling pour faire joli c'est rouge oui ça fait joli mais si ça ne sert à dafa am date de péremption boo xam ne bu fa yeggee da nga koy changer. wallaahi. man nag wax dëgg yàlla je suis pas te émission bi dañu waroon jël par exemple Boy Town Pape Alioune wax ci affaire u GTA. Mhm. professeur wax ci affaire u blé bi ni mu manqué. Mhm. ak guerre Ukraine bi. Mhm. mais munuñ. doo ko mën munuñ munuñ munuñ wax munuñ wax parce que munuma. mënul lii dal suñu kaw le jour du pétrole waaw wax nga dëgg wax nga dëgg le jour du pétrole la ñu nekk de Djibril Djibel Dramé le jour du pétrole mais tey mënoo wax waxu pétrole. noo ko wax. pétrole koom-koom la bu la yàlla di jox. Mhm. tey nit wala gaz. Mm. te tey ay nit la ñu ñàkk. ay bakkan bakkan moo gën a foor loolu. ñu ngi xaar euh, ñu ngi xaar euh, réaction wu Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes. ndax jàpp nañ ne kàddoom toll na foo xam ne ci réew mi mhm. bu baam baamtuwaatee la mu waxoon état bi dinañ ci jël ay mesures te président de la république tweet réglé wul réew mi tweet ça ne problème am na ku nekk en ligne ñu jël ko très rapidement xam naa mooy dernière personne bu ñu jël allo. asalaamualeykum. maaleykum salaam. waaw sëñ Pape Sidi Fall. waaw ku wax loolu. man la Ahmadou Ndiaye Japon. Ahmadou Ndiaye Japon. waaw. na nga yittee Ahmadou Ndiaye. ah ñu ngi sant bu baax waaye tey ah suñ na neexul. kenn neexul la de journée. waaw tey jii ñun euh, parce que ñun rawee nañ leen neuf heures temps donc ñun bi ñuy liggéey tey. Mhm. dañ jékki-jékki xool suñu téléphone gis ni Sénégal ab jéeya dal nañu. Mhm. fukki xale ak benn yàlla jël na leen. ci loo xamante ni. maanaam mën nañu ñàkk farlu doomu aadama moo ko waral donc ñun tey ji loolu tuur na suñu rangoon waaw mën nañu ñun suñu rangoon gën naa tuur waaye tey tuuru na waaye ah ñu ngi wax euh, waajur yi nga xamante ni ñoo ñàkk ah nañ doyloo yàlla wéttali ko yàlla te te sante ko yàlla waaw ndax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun noonu dañ ko waxe hmm. waaye man li ma bëgg a wax mooy hmm. ñun Sénégal jot na ñu dug jëlaat suñu réew parce que réew mi ñun ñoo ko moom. Mhm. dañ koo dénk Macky Sall euh, Macky moomu réew mi. déedéet. Euh, moom doon na réew mi ci ay maamam. dëgg la waaye instant bii nii bu ngeen xoolee ni nga xamante ni moom la réew mi doxee temps yii passé Louga la fa xew. Mhm. nga xool euh, am na temps un an six mois ci ginnaaw defe naa am na ay liir yu gën yu lakkoon xaw ma ñeenti liir xaw ma juróomi liir. Linguère. Euh, nga xamante ni loolu noonu yëpp tey jii boo ko xoolee li ko andi yëpp mooy ñàkk farlu doomu aadama tey jii nag Sall buy fal ministre de la